samedi bu nar a cuqur mbut ci wàllu sport tey jii daanaka da ngeen dund yoo xam ni yu saf sàpp ak xorom la donte final li nga xam ni daanaka mooy coupe arabe bi ñancoo national ak Koulibaly war a séq fële ca Arabie Saoudi Marca yëglekaay ñëw na tamit ak yeneen journal yoo xam ne mën nañ ko cee toxtal Baye Mandione tamit mi ngi ci journal bii di sunu làmb lépp bëgg nañ bu ngeen defee seen i abonnement ba pare ba pare ubbi teg saison gi koy toj fële ca Sandaga gaaw leen wut seen i moyens yoo xam ne yu mucc ayib la wala ngeen def seen i commande ñu leen ko wala ngeen dem ba Sandaga euh, ndax catalan yeeg ñoom ñëpp ak waa Arabie Saoudi kenn kom ci man di doon yaa ngay fexe am sab mooy waaye jàmbaar ji ma taxaw di xaar ci njëg yoo xam ni yu mucc ayim la moo gone Sandaga gi gone Kaolack gi bu loolu lépp woo si yeesoo ñu ñëw ci li nga xam ne mooy yëglekaay commencé kook stade de yëglekaay bi nga xam ne saer sabt la andi mu feggoog Sadio Mané ñaancoo international ñu daal di jël ci wet ga ber ki nga xam ni mooy Koulibaly en Koulibaly ndax loolee bu ngeen ko gisee daanaka tey jii tëccante bi du yomb benn yoon tey jii moom li ma leen mën a xamal muy ab serité boo xam ne bu neex la doomu sénégala tey dana doon euh, dana jël coupe d'Arab ndax ñaari sénégalais yi ko séq force am ku jël coupe bi kon gars yi mbégte euh, da ngeen ko am tey bu 15 heures jotee euh, jëm 17 heures ci final boobu nga xam ne bu am solo final boobee da ngeen ko mën a dund avant match après match ci Alxaaji euh, Malick TV ndax loolee daanaka danañ ci def liggéey boo xam ne bu mucc ayib la yéen ñi mucc ayib ngeen toog dinu xaar record tamit ñëw na euh, ci final boo xam ne euh, tey ji daanaka lépp da koo jël def ko ci xëtamu njëkk teg ñaan ci international Cristiano Ronaldo ñuy tàppante teg ci ki nga xam ne mooy kii di Koulibaly Haaland nag def na doublé démb yëglekaay bi boros na ko ci catul yëglekaay bi nga xam ni moom mii di record ay record rek la fi indi fekk na booba combat explosif Ah, bu Baye Mandione ak bébé jénn ah, combat boobee gars yi ah, daanaka sa dimanche bi nga xam ni moom la ñu dëgmal match bi dina tas ci ñoom ñaar Baye Mandione daanaka moom gën naa bëre te it yi namm na lambam moom mi nga xam ne daanaka lambam waxuma la dara waaye conférence de ak jàkkaarloo loolee jar na dëgg bii di ko fekke fekk na booba journal yi nga xam ne ñoo ne fële ca Espagne tey moom andiwul football lu bari ndax seen xët yu njëkk ñu nga ca seen équipe nationale yi nga xam ne am nañ ay ndam ci loolee nga xam ne jëm na ci mbirum football boobee nga xam ne ay jigéen euh, ñoo koy football ñu man caa jàpp lële euh, di coupe du monde ndax taxawaay nga xam ni ñoom am nañ ko ci équipe yi espagnol yi loolu leen andi waaye nag andi li nga xam ne moo nekk final ba ci benn coppati ci kaw mooy final ba nga xam ni ñëpp moom la ñuy waxtaane léegi journal Europe bi ñu ngay góorgóor ak Barcelone muy waaj a li nga xam ne mooy saison euh, bu mucc ayib andi na tamit final bi nga xam ne wala boog match bi nga xam ne gonay njagamaari Espagne yi dikk nañ ci lu yaatu